di di kontaan ci seen visite euh, wax dëgg yàlla kontaan naa ba fu kontaan yem parce que dara neexul lu yegg té gis na né monsieur le maire yegg bu ma yegg jéggi dayo parce que lo xamante ñu ngi lay sogal a nommé sur ci ce poste xalaato leen lu nga njëkk ñew ñëw def visite fan nga ñew Star industry donc lool duñu def lu di ci contane diko ñaanal poste bi mu ko bi mu nekk ni yalla gën ko ci kaweel mu dem ba am ci lu raw Star Industrie unité de transformation agroalimentaire euh, et de raffinage donc Star Industrie dafa doon loo xamante ne lépp luy jëm ci aliment rek alimentation rek ñun dañ koy def c'est-à-dire de du décortiquage ba ba ñuy raffiner dañ koy def dañuy def diwlin dañuy def mayonnaise dañuy def ketchup dañuy def euh, tout ce qui est euh, aliment agroalimentaire dañ koy def léegi nak euh, Star industry mu ngi nek ci Tooki village de Nebbe euh, ñun ay acteurs de développement lañ développement rek moo ñu tax pour faire vivre la communauté lool rek moo ñu tax a jóg. waaw fi mu nekk nii Star industry mën nañ ne lepp jàppandi na mais yalla mi dara tëwul dañu am ay galancor ak ay ndog-ndog yo xamantene daf ñu dab ci biir instant bi ni am nañ jafé jafé yu bari jafé jafé biñu gëna sonal nak moy problème électricité ndax instant bi électricité bi dañoo tollu fu loo xamante matériel biñu am liñu am ci début arrangé wuñu dafa ndaw donc bu fekkone tay ji suñu électricité taxaw na mën naa bu ngeen fi ñëwé di ngeen fekk seen diwlin paré seen mayonnaise pare lépp pare mais yàlla mi dara tëwul li ñu am ci courant li mu ñu mën a defal mooy décortiquer gerte ak defar aliment de bétail donc au moment bi may wax ak yow nii ñu ngi defar aliment de bétail ñu ngi xool li gerte mais mënuñu koo paase ndax dañoo am jafe-jafe ak courant bi waa jafe-jafe courant bi mooy ñun suñu doolee fu mu yemoon mooy ñu am suñu def suñu transport aérien def nañ transport aérien bi mu doon H161 H161 boobu mënul couvrir suñu matériel matériel bi ñu am il faut ñu am poste poste boobu nag moo ñu indil jafe-jafe ndax fi ñu nekk nii dëggantaan poste bi metti na parce que bokkul woon ci sunu projet daf ñoo dab daf ñoo dab parce que xër gi ñu xër ci ci projet bi moo tax suñu matériel dem ba dépassé ñu donc li ñu installé amuñu courant bu toll noonu loolu mooy indi ci pexe pour am poste wala waaw ñoo ngi ciy pexe ñoo ngi ciy pexe pour am poste pour am courant bi mais tam ku ñu ci mën a jàppale tam ñu jël ku ñu ci mën a jàppale ñu jël parce que metti na. waaw maa ngi woo maa ngi woo ñëpp koo xamante ne mën nga ñu ci dimbale ba ñu am courant rapidement ba mën a commencer suñu liggéey dinañu jàppale ndax fi mu nekk nii installé nañ machine yëpp. courant kessé moñu téré teree fonctionner. am ñeneen jafé jafé yu nekk en cours parce que instant bi jafé jafé buñu ñu courant bi am jafé jafé ci carburant bi carburant bi ñu am jafé jafé moy suñu yenn machine yi carburant mo koy dawal te pour ñu am courant heure ñu am carburant il faut ñu tal, suñu auto dem ba commune de Diourbel fa jënd fa carburant pour indiwaat ñëwaat fi ci tooki pour defal ko donc loolu tam jafé jafé la suñu suñu amone poste suñu amone station bu ñu gën a bu kerogee yenn jafe-jafe yooyu yëpp dina résoudre incha allah. waaw kon fi ñu toll nii daal soxla ngeen station bu leen gën a jege nga xam ne day nekk ci zone taw soxla nañ station boo xamante ne bu ñu génnee suñu bunt jàkkaarloog station bi loolu dinañu dinañu arranger bu baax ndax dina permettre ñu gagner temps te dañu permettre itam temps bi ñuy perte pour dem di jëndi carburant bu kerogee dinañ gën a yokk suñu production. Mm-hmm. waa sama wax ju mujj daal mooy Star Industrie dafa ñëw pour développer Diourbel. parce que Diourbel ñëpp xam nañ ne zone bi euh, liggéey bi demeewul noonu ndaw ñi amuñu liggéey ñun bu ñu ñëwee fii Njaareem pour liggéey dañu bëgg a jàppale jeunesse bi donc te loolu président moo ko woote woon président moom moo ne ku nekk na nga développé sa commune ñun bu ñu ñëwee di liggéey kon dañuy wuyu woote président woote président boobu ñu wuyu nag moo ñu indil ñun ñu ba tooki def fi suñu implanté fi suñu suñu usine pour jàppale jeunes yi ñu mën a liggéey ñun jàppale jeunes yi rek moo ñu tax a jóg. ok merci beaucoup.